kon bu leen nangu technologie bi li war a defar réew mi ñëw tubaab yi di ci defar seeni réew ñun ñu bëgg cee yàq suñu réew bañ leen loolu bañ leen ko bañ leen ko man mën ak yéen a far bu fekkee sama wax ji mënu leen a dëpp ngeen baax dee leen seetaan papaan bala ngeen di déglu Modou Fall parce que mën ngeen jàpp sax ne booy laa wala ci saayir laay dox du ngeen ma déglu mais xam nga ay wax bu dofee nopp yoo koy déglu war a wér ku ne ci dëgg ak ku newut ci dëgg réew mi lépp ngeen xam dof-dof loo leen neex ñenn ñi kon nag yéen ñi nekk ci réew mi di dof-dof lu bëgg a tas réew mi ndax lan ay kalank yëfu dof dëpp leen man mënumaa xeexal kenn mënumaa xeex mënumaa xuloo ndax man awma ku ma war a xeexal ci réew mi awma ku ma war a xuloo ndax ku fréquenté wul tem la mënumaa xuloo ndax man aw ku ma war a xeexal ci réew mi awma ku ma war a xuloo ndax ku fréquenté wul kenn demoo fenn jotewul dara kon lu ma wax ci télé rek tem la dañ leen baax te yërëm ndaw ñi respecté mag ñi bëggante leen ci seen biir man de duma ma nangu kenn gën ma képp ku ma yàq ci àddina sama patt dàll bi yëla gën barki sëriñ Saaliw waaw parce que nag lépp luy xeetu mbon man du ma ko def du ma ko def kenn du taxaw ci télé xam nga nit ñi sax dañuy taxaw ci télé di miime ragal la wax yenn yi barki sëriñ saaliwu mbàkke bu leen nangu ku leen gën gëm leen seen bopp nee naa leen li ma leen waxoon un jour ma ne leen yu Ndour daf may ëppale rek ëpp ma ay bien barki sëriñ saaliwu du ma nangu mu gën ma suba bu yàlla tere tereeti ko bu problème amee xoolal su ma arrêté damay dem liggéeyi parce que damaa ñëw fekk mu fexe ba doomam yépp am diplôme teg leen ci ay bureau man awma chance bi jànguma awma diplôme waaye suñ borom wan na leen ne xale yooyu mu jël installé leen muy ay doomam yar leen ba ñu yaru ña ca bureau yooyu liggéey ma ñëw nag ne ko man àddinaa ma jàngal génnewu ma ci benn école mais raw naa képp ku am diplôme barki Sëriñ Tuubaa parce que boo taaxirloo rek lu ma la wax duma ci dellu te boo ko xoolee téere la bu ngeen amatee ndogal ndog ndog ci àddina muñ leen ku ci amatulu la metti duggal ci sa néeg nga saraxe julli ñaari ràkk ñaan yàlla may la xolu muñ mais bu leen ko fajee xeex xuloo gaaruwaale gaafal nit wax ko lu bon te yow ki ngay yàq xam nga ne yow patt daalam sax la gën xool leen ngeen xàmmee bu baax xam nga lu gën a bon génn télé di cité ay turu nit naa mënoon naa ko de te réew mi dafa am yoon koo fi génn ci télé naan Amina Poté nangam ak nangam bu ma neexee fekk la faak plainte dig te boo demee looy wax suñ la tegee ci bureau dig yii ne la yow Poté turam nga tudd loo joteeg moom yow lan ngay wax xam nga yéen xaw ma jàng ngeen xaw ma jàngu leen mais xamu leen loi kenn du tudd turu nit di ko daggali saaga kenn du tudd turu nit di ko sosal lu mu deful. Nduur Sénégal ñu ci bari dañuy taxaw naan njaga moo ko def njag te yéen leer na leen ne dara du dëgg li ngeen di wax dara du ci dëgg ngeen yore seen ay micro naan njaga moo ko def Sénégal ñëpp di vidéo njaga nduur moo ko def njaga nduur lii te yéen xam ngeen ne demeewul noonu mais yéen yàq moo leen neex te ki ngeen di yàqal muy sekk yónniwu leen ndax xamut lu bon du def lu bon ngeen moo ko def njaga nduur te yéen xam ngeen ne demeewul noonu mais yéen yàq moo leen neex te ki ngeen di yàqal muy sekk yónniwu leen ndax xamut lu bon du def lu bon ngeen topp di yàq ay nit moom loolu neexu ko beneen affaire bi barki démb ñu doon saaga Wally sekk xoola tey fi ñu mujjee ci yoon réew mi dafa am yoon man temps laa gis benn mag moo xam ne ci tele la nekk ñu dagg ko yónnee ma ko naan Amina moom daa war a bàyyi gaaruwaale yow lan mooy sa promotion taxawal ci télé nga def tem mais yow coow ba mu amee xamoo lu xew sa yoon newut ci coow li yaa ngi jur say doom war leen a gérer gérer woo leen bala nga toog ci télé war a wax dëgg nit ñi naw la mais noonoo non Youssou Ndour daa war a dàq pote ndax ci télé bi lay toog di xuloo man kan laa joteel te yow maîtriser woo coow li nga doon wax xamoo dañ maa tooñ xamoo ndax man damaa tooñ gëstuwu leen jéemu leen a sax seet xam naa ne ñeme ngeen yàlla te yenn yi ku koy def xalaatoo sa bàmmeel mag da yem palaasu mag bu fekkee ne promotion ngay wut bañoo dara nu la neex ngay def ba génn tele soo toogee ci tele yi waxal lu nit mën a dégg mais bul toog ci tele yi defar sa yaay yàq yaayu jàmbur léegi looloo xew defar sa nday yàq ndayu jàmbur defar sa doom tilimal doomu jàmbur bàyyi leen doomu jàmbur yi ngeen di yàq réew mi fii kenn bonul koo fi dugg ci ay mbokkam boo ko jeexee gis fa loo xam ne buñ ko waxee ngeen seen gémmiñ yi daw ku ne lañ mën a xas man bañ naa ko ba bu may wax je bi bien moo dama naan man samay njaboot ak samay fameek samay maamaati maam kan moo leen ne man daanuñ tam samay maamaati maam wala ñu jiiñ leen lu kenn xamul waaye man ba ma juddoo nekk sët reyante naa takk sama ndigg fexee doon gaynde njaay ba ku ma jub nga daw du ma def dara lu ñaaw kon bala ngeen di waxati ci doomu aadama yi wala ngeen di tuumaal nit lu mu deful segg leen ko bëgg buzz bëgg promo bum leen jaral yenn yi ñu ci bëri ñu ñuy défendre ay naafiq lañu barki sëriñ Saali bu timis maacee maasee nga yor dugg ci seeni i biir kër ba fekk la ñuy def da ngay sa gémmiñ daw boo dee nit ku baax dootoo ànd ak ñoom kon bu leen yàq kenn ci réew mi fii ñun ñëpp a yem famille yi foo ci dugg gis ci lëj-lëj yàlla moo ñu suturaal suturaa fi ne rek coalition groupe xas nit non non benn nit mooy jël juróomi nit yu tekkiwul dara du ko ci kaw nit ku baax yow nag boo nàndee loolu du la metti mais soo ko xamul da ngay perturbé wu boo gisee lu nit dugal ci TikTok bi neexu la bul commentaire loo xam ne bu ko liiree xolam naqari te du ko mën a faj rombal nga dem sa yoon TikTok dangay ngay avancé rek autoroute la am carte jàll amut carte jàll waaye dañuy dugg ci TikToku jàmbur yi yow li nga ma bindal ba ma liir ko mu metti ma xam nga man nu ma koy jàppee ak sama xel damay xam ne li ma la rawee bari na mënoo maa jot ci message nga may dàq jàppee duma ko nangu man ku ma bind saaga ma damay xam ne maa la gën ku ma bind xas ma damay xam ne ndax man aw ma jot bu di yooyu aw ko man nee naa leen damay wax yu rëy mais ci tele laa koy waxee bu ma paree basta mënuma liggéey télé ñu tegee ma fi wax may wax waxi dof baax leen ku ne la ngay def di ko nëbb yow la concerné mais bu buñ génnee nañ fair play bul jàpp ne nit ñi nan la ngay jël ay xeer di leen ko xaañ jël ay nit di ko dóor ci seeni kaw nit ku baax bokk ci fameem nekk responsable am ay jabar am ay doom ngeen di teg ci daram loo xam ne baaxul bàyyi leen ko mënu leen fee ñaawal kenn ba mu ñaaw ku ne xam nga ni ñuy taggee sa maam ku la géwél taggalul say maam bu la neexee wéet na man la suwaay bi borom jom ji ci taar bi ku ne mën ngaa wax du ñu ay muuma muuma sax day liyaar mu ngéwelee kon baleen nit ñi ñu dem seetaan Bercy préparé li nga xam ne mooy Bercy ñu ñëwaat ci Facebook bi mayewaat